mooy kàddu yi maanaam. Mhm. justice dafa am langage boppam boo xamante ni moom moo ko moom ba nga xam ni loo dégg ñu wax ko ci rek di nga xam dossier bi fan la toll ndax fenn fu ñu toll étape bu ñu toll rek dafa am kàllaama yoo xamante ni moom la euh, justice di utiliser. dafa am ñetti étape nag procédure pénale ñetti étape la mooy enquête préliminaire mooy mbir ma ba mu tollee police ñaareel bi mooy instruction comme fi toll ni dossier bi ni mu nekkee ci doyen des juges mu koy tam euh, mu koy càmbar ñetteel bi mooy procès bi mooy àtte bi bu fekkente ne dañoo nekk ci enquête préliminaire enquête préliminaire mooy bu dossier bi nekkee police ay garde à vue ak yooyu yëpp ci enquête préliminaire la foofu ki porte plainte plaignant lañ koy wax plaignant ki ñu porte plainte mis en cause lañ koy wax walla suspect mm-hmm. bu dossier bi jógee police dem tribunal tour yi dañuy changé mm-hmm. léegi ki porte plainte dootul tuddati plaignant mais partie civile lay tudd ki ñu porté plainte dootul tudd mis en cause mais prévenu lay tudd wala accusé bu dee délit lañ ko toppee prévenu lay tudd bu dee dégg nga maam euh, crime lañ koy toppee accusé lay tudd. Hmm. ah jar naa xam nag. donc loolu dafa nekk ay mbir yu yoo xam donc bu ñu taxawee ci kanam attakaay bi ki ñu at euh, topp pour délit. Hmm. ki ñu topp pour crime accusé lay tudd. léegi nag bu fekkente ne dañu nekk ci doyen des juges ñoom fi ñu toll ni ay inculpé la ñuy doon. parce boo jëlee dossier Sweet Beauté xam nga ñaari nit lañ ciy topp. waaw hmm. mooy Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye. Mhm. loolu lu jar a fàttal Ndeye Khady Ndiaye du témoin Ndeye Khady Ndiaye dañ koy topp dañ koy poursuivre parce que dañ ko inculpé. inculpé la di ko topp euh, comme lu jëm ci salon de bois affaire yooyu noonu proxénétisme ak yi ni mel loolu dañ koy fàtte donc ñoom ñaar ñëpp ay inculpé lañu bu ñu demee ba taxaw ci kanamu àttekat bi nag foofu beneen tur day dañuy donc du bokk ak tur bi ñu leen doon tuddee police du bokk ak bi ñu leen tuddee fii ci instruction bi su boobaa beneen tur day changé mhm. ñu doon foo déggee accusé mhm. mooy koo xam ne crime lañ koy toppee hmm? foo déggee prévenu mooy koo mm. xam ni délit lañ koy toppee donc accusé crime nag moom yaakaar naa ni wax leeraloon naa ko fi mm-hmm. crime mooy mbir yi nga xam ne yoon da koy tere te daan bi ñu la ciy teg dix ans la commencé jëm kaw su ma dix ans rek délit la mais bu crime moom à de dix ans la jëm kaw mën naa dem ba giiru dund crime nag mooy lépp lu jëm ci rey nit wala posone nit wala jur doom rey ko wala trafic de drogue boo xam ne drogue donc loolu jar a xam la drogue mm-hmm. moom bu ñu la ci jàppee bu xasee ba mat kilo rek minimum bi mooy dix ans yi nga xamante ne da nga ko ciy jël mm-hmm. donc yi ay kàllaama la yoo xamante ne il faut que ñu déggoo ci mm. beneen mbir bu jar bàyyi xel viol tamit criminalisé nañ ko waaw viol du criminalisé nañ ko depuis 2020 vol de bétail vol de bétail justement ak ak ah, yeneen ak yeneen tamit di nga nekk ak Pape ci même kër gi te doo miin droit ah. attends ki da romb xool la rek droit bi ñëw victime nag kañ lañ koy wax waaw euh, victime moom xam nga benn genre terme générique la boo xamante ne étape yëpp mën nañ ko tuddee nit ki. Hmm. bu dee yooyu moom kàllaama la boo xamante ne étape yëpp mën nga ko tuddee mën mën waaw mën nga ko tuddee victime. léegi beneen kàllaama bi nga xamante ne bu jar bàyyi xel la mooy. Mhm. lu jëm ci wàllum mhm. convocation. bu fekkente ni nit ki dañ ko woo police. foofu la ñuy wax diw dañ ko convoqué. waaw mais bu dee wàllu tribunal la on parle pas de convocation. donc Ousmane Sonko n'est pas convoqué mais il est cité à comparaître. convocation bu ñu koy wax police a tax ñuy wax mm-hmm. Mm-hmm. mais tribunal tribunal moom foofu kenn du wax waxu convocation foofu citation à comparaître la wax. donc au ñu naan convocation de Ousmane Sonko li ñu war a mooy comparution de Ousmane Sonko wala citation à comparaître de Ousmane Sonko. Mm-hmm. juste dafa am ay kàllaama boppam yoo xam ni. Mm-hmm. foog ñuy déggoo ci clé yi donc moo tax kal boo kaddu boo ci dégg rek di xam dossier bi fan la toll. Mm-hmm. Euh, euh, waaw cest à mooy li ñëpp xam. mooy terme bi ñëpp xam moo gën a simple nag. xam nga vulgariser li nit ñi xam mi ngi mel ni lu jëm ci instruction rek. Mhm. man je préfère sax ne enquête xam nga boo nee enquête sénégalais dinañ xam li nga wax. Mhm. mais boo toogee na la instruction wala information judiciaire dafa diis. Mhm. donc dañuy jël kàllaama yi gën a mais nag mais nag Pape yooyu dañ koo war di wax ba nit ñi miin ko xam ko. parce que bu fekkee ne dañuy continuer rek gën a yomb di gën a yomb mais toujours jaxasoo googu ak pëccëxoo googu da ciy am. tamit il ci ci làkk yu bëri dafay dafay indi ak jaxasoo même sunu wolof yi nii daf ci am baat yu bëri yoo xamante ne nii maanaam wit lu yomb ak waxee ko nu yomb ak rus koo wax ak nangam. Mm-hmm. moo dem dem tamit ba dafa indi pëccëxoo gu bëri bëri ba yenn saa yi nga wax dara sax. Mm-hmm. mu jur musiba. Mm-hmm. léegi xam nga ñun responsabilité journaliste mooy. ñun dañuy fekk lu diis lu naqadee comprendre nga oyofal ko. waxee ko ci kàddu gu oyof ba ku koy dégg. mën a comprendre nga mën a mën xam li ngay wax. Ah. mais mbir yi noonu la tëddee parmi tant d'autres nag ak mooy loolu mooy première observation bi li war a xew tey mooy audition sur le fond lan mooy audition sur le fond tey du bés bi ñuy àtte Ousmane Sonko mhm. lii xew tey du àtte mhm. bokkul ak àtte bi ba léegi maanaam mbir la yoo xam ne moo jiitu àtte bi mhm. tey du si le juge bi di décider ndax dañ koy setal wala dañ koy yóbbu ñu àtte ko loolu tam foog mu ah. leer audition sur le fond du lenn lu dul biir juge bi door dossier bi moo ko woo ci biir bureau donc mbir bi du sax audience publique boo xam ne ku ne mën fekkee di déglu li ko di laaj di déglu li Ousmane Sonko di ah. tontu du demee noonu bi la ko juge bi di woo juge bi toog avocat ki ñu woo toog ki teewal procureur ñëw toog. Mhm. greffier bi toog di noter di bind li ñuy wax. donc audition sur le fond noonu la. moo tax sax am na ci journaliste yu bëri yoo xamante ni. Ah. sax sonn seen bopp di dem il préfère bàyyi ba affaire bi jeex ñu woote xam pour xam la fa xewoon. parce que boo demee doo dugg doo gis la fa xewoon. am na ci avocat yu bëri yoo xam bu ñu génnee sax du wax parce que dañ la secret de l' mhm. donc audition woo na ko ci bureau am lay toog. Mhm. juge bi bu ko neexee toog defar naan. wala mu teg ataayam fële ataay bi di wax ngay naan Samba Sall da ko doon def mm-hmm. moom oh. da ñëw mu tegal ataay yow mi muy topp sax yow lay ñëw xiimal ataay jox la ne la naanal dalal la mm-hmm. soog a commencé poser ak yow ay question ak yooyu noonu donc audition sur le fond daal ci gàttal mooy juge bi da woo ci biir bureau mm-hmm. ndax bëri luy xew justice yoo xamante du audience publique parce que ñu bëri yaakaar dinañ tey jii ni bu ñu demee rek dañuy fekkee ma a pas à s'alarmer. Hmm? loolu na fa xew. lu ne mën na fa xew loolay wax ji. li fay mën a xew. Mhm. Mhm. Mhm. waaw donc audition sur le fond ak demande liberté provisoire moo yem. foofu leeral bi dina am solo parce liberté provisoire mooy euh, bàyyam ndigandiku nit bi bu ñu la koy ñaanal boobu tam du doon audience publique yow mi mu concerné sax doo ñëw say avocat ñoo dem ci bureau juge ba demander liberté provisoire yow mi ma concerné ca prison ba ngay toog xaar de la bu ñu la attee ba ni jour tel dinañ la jox délibéré bu verdict bi bu ñu koy joxee yow parfois sax do yow doo ñëw tribunal euh, prison ngay toog verdict bi fala lay fekk bien que parfois nag mën nga ñëw mais parfois mën nga mën nga bañ a ñëw donc yooyu yu mën a xew la mhm. donc yaa ngi doon wax léegi ci lu jëm ci la ko ah, mhm. a joué le juge bi dóor la mandat de dépôt mandat de dépôt moom foo ko dégg mooy xam nga leeraloon naa ko diggante déféré ak ma déféré mooy jël nañ la police indi nañ la tribunal mhm. mandat de dépôt nag moom mooy da ngay dem fanaani kaso mhm. donc juge bi am na pouvoir boobu noonu am na pouvoir nga ñëw mu déglu la bàyyi la nga ñibbi mhm. am na pouvoir nga ñëw mu déglu la ne la dama lay yóbbu kaso donc mandat de dépôt moo tax ma ne la lu ne mën naa xew tey lu ne mën naa am. foofu dañuy woo de moom kon day woo ñeneen ñoo xam ne ñooy ñëw jël la yóbbu la kaso directement. waaw te yow bi bi fekkee bi ngay ñëw préparé woo woon pour dem kaso nag. mais am na ñum dal. xalifa <laughs> Sall xalifa Sall bi ñu koy tëj kaso police arrêté wu gendarmerie mais dëgg la. juge d' bi moo ko convoqué directement mu ñëw mu placé ko sous mandat de dépôt c'est-à-dire que gis nga procureur ak juge dañu am pouvoir boobu noonu. Mm-hmm. ah la toog. teg la ay tànkam jël kafem di naan tijji journalam xool petit déj na génne woo woo commissaire bi damal jàppal ma mbay non non waxal ko rek ñu ne ay géwél la xamuñu kaso non pour wax la pouvoir ak pouvoir juge d'instruction ñu ne géwél la xamuñu kaso ñun ñun wax non ñaanal la ko yàlla na la jàmm lu neex sol lu rafet wax lu baax lii daal la xam ne nu may nu xaalis bi ñu. non la ko yàlla la jomb donc c'est pour expliquer gars yi ñëwoon kaso de. kaso ñi ko ñeme bëriwuñu ñun <laughs> xamuñu ñun ku la ñaanal la jekk ban bala nga jubluwaat sa kër. <laughs> man de mosuma xam ne mbay nii la rek la <laughs> donc pour expliquer le pouvoir nga xam ne juge. Euh, macha am na ko ak juge d'instruction. ki mm-hmm. yor dossier bi doyen de juges nag. Mm-hmm. moom du mooy atte Ousmane Sonko. amul pouvoir sax atte Ousmane Sonko loolu tam foog mu leer. ok waaw koy déglu rek doyen des juges enquêteur la rek. maanaam enquête bi police ak gendarmerie di def moom juge la boo xam ne day gën a xóotal enquête bi rek. mais ba léegi bokkul ak ki war a atte donc doyen des juges du mooy atte Ousmane Sonko amul pouvoir atte Ousmane Sonko. su ba defee enquête am ba pare da koy jox beneen juge. kooku mooy juge du siège kooku mooy atte dossier bi. Mhm. donc doyen des moom dafa yaatu moom. ay mhm. pouvoir am na trop mën na la décerner mandat d'arrêt procureur sax amul pouvoir joxe mandat d'arrêt juge mu d'instruction moo am pouvoir joxe mandat d'arrêt ak juge bi nga xamante ni moom moo lay àtte mhm. donc doyen des juges bi war a déglu Ousmane Sonko tey mhm. amul pouvoir àtte Ousmane Sonko amul pouvoir dégg nga maam ne kat tey jii nii la la la lay dogal ni dañ la war a àtte euh, maanaam tey tey tey tey tey mënul jël décision finale mënul wax ni tey la koy setal wala tey lay yóbbu dossier bi ñu àtte ko. Mm-hmm. li ko waral mooy. mais mën na ko def mandat dépôt. mën na nekk wax ci ay mm-hmm. bokk na en tout cas bokk na ci ay pouvoir am. ndax dina am waa wala déet loolu moom yaakaar naa ni lu suñu kanam la. am lu ma bëgg laaj Pape mm-hmm. moom mooy. au cas par malheur wala bokk je sa pas lan laa war a wax mais au cas où. mu am ay lënt-lënt ci doyen des juges mu toog. xalaat ne vraiment y a des choses qui ne sont pas claires ci moom. Mhm. est-ce que foofu noonu mën na jël Ousmane Sonko mu def ko euh, su. Euh, euh, mandat dépôt mandat dépôt. Mhm. ou bien mën na ko yóbbu maanaam naka dellu sa kër. Mhm. convoqué waat ko beneen jour. pour defaat enquête pour leerlu ci yeneen. et puis beneen affaire mooy est-ce que rapport yi nga xamee ne que dugg na sur internet ba pratiquement ñu bëri jot ko rapport d'enquête yu yeneen ci ñi ñi nga xamee ne que dossier bi concerné na leen loolu dafay am influence. ci alors décision bi doyen des juges waaw donc bu dee pour laaj bu njëkk bi bu dee mandat de dépôt bi juge bi am na pouvoir boobu hmm. donc bu la wooyee déglu la soit da bàyyi nga ñibbi sa kër wala mu def comme nu mu doxalee woon ci Khalifa Sall parce que moom dañ ko convoqué directement mu ñëw ñu mandat de dépôt ko hmm. donc foofu lu lu lu lu mën a nekk la maintenant par rapport ak rapport yi nga xamante génn ci presse bi hmm. paate gis nga yoon Hmm. juge bi la nga wax ci kanamam. loolu lay considéré loolu lay jàpp. la nga wax feneen liiw ko. liiw ko d'accord mais kon bu ñuy wax que pour d'avocat wu Ousmane Sonko bind nañ. Mhm. le doyen des juges pour mu convoquer euh, ku ci mel ni Mamour Diallo parce que gisoon nañ audio yi nga xam ne defoon nañ ko ci internet bi. Mhm. ak ku ci mel ni Baye Mbaye MC. parce que moom mhm. nee woon na yor na enregistrement wu Adji Sarr fu mu koy avouer que lii c'était un complot. donc en réalité loolu ay wax la rek loo xamante ni. juridiquement loolu seen alors que moom ay Euh, bind nañ correspondance yónnee ko doyen des juges pour mu woo leen ñu mën leen témoin waaw xam nga loolu avocat ci seen droit la bokk mhm. mën nañu woo ñu leen neex pour que ñu déglu leen comme ay témoin comme ay seede mhm. léegi loolu bu bu ñu bindee loolu pour juge bi def loolu ka mu juge bi da koy mhm. a def woo ne la yaa wax lii nga répété ko nga confirmer ko ci kanamam donc moo tax ñi yaakaar ne ay audio ay vidéo preuve la ci justice ñi ngi ndax seen bopp. Mhm. Mhm. tekkiwul dara ci justice ay ay vidéo ay photo mhm. dara ci justice. parce que juge bi mën nga ñëw ba foofu mën na la lii doyu ma ko tegee ko nale loolu lu mën a nekk la. donc yooyu ay mbir la yoo xam ne te man sax te li tax ma ni la. tey tey tey tey tey doyen des mënul décider ndax day tëj dossier bi wala day setal Sonko tey tey tey wala da koy yóbbu mu àtte ko mooy. su dégloo mbir bi ki xam nga déglu na ki porte plainte déglu nañu Adji Sarr. déglu nañu seede yi déglu nañu ñi ñuy topp déglu nañ Ndeye Khady Ndiaye donc Sonko rek moo ci desoon. Mhm. su paree ci moom balaa muy def leneen balaa muy tëj wala muy décider ndax da koy sare il faut mu dellu ci waat ci procureur. ne ko mhm. pare naa sama enquête. lan mooy sa xalaat bu mujj say dernière observation procureur def lu ñu tuddee réquisitoire définitif ne ko mat li may ne ko kat soit damay sàkku nga yóbbu diw ñu àtte ko wala damay sàkku nga setal ko. Mhm. foofu nag lay yi mën a jël mooy soit day def leen. ne leen set ngeen wicc dem leen ñibbi kenn toppatu leen ci dara wala mu ne dama leen di yóbbu ci beneen attekat bi ki am pouvoir atte leen mu atte leen donc loolu mooy possibilité bi nga xam ne am na mais man damaa jàpp ne dossier bi mënaguñ koo tëj ndax li tax mënaguñ koo tëj mooy lu baree baree bare lu war a leer leeragul lu baree bare loo xamante ne dafa war a leer leeragul ndax dañoo gis ay kàddu yu féewaloo xam nga maa ngi la naan déglu nañ Adji Sarr mhm. déglu nañ Ndeye Khady Ndiaye mhm. déglu nañ borom këru Ndeye Khady Ndiaye muy Ibrahima Coulibaly mhm. déglu nañu Aïssata Ba ñu gën ko xam ci mama ba mooy deuxième masseuse bi nekkoon Sweet Beauté déglu nañu médecin bi moo defar certificat médical bi muy docteur Alfousseyni Gaye déglu Ahmed Mbaye bi nga xamante ne guddi ba mbir mi xewee 2 février 2021 moom moo jëloon euh, Adji Sarr ci oto yóbbu ko hôpital pour ñu dem ñu càmbar ko mais ñooñu ñëpp bañ leen dégloo seen wax dafa uute déglu leen bu baax ma tënkal leen kenn ku ci nekk lu mu wax Adji Sarr biñ ko dégloo dafa ni c'est la première fois ñu yegg sama kaw et que diw may jiñ moom moo ma dévergé mhm. mi ngi doon soog a euh, euh, ñu ngi doon soog a yegg sama kaw n'est-ce pas mhm. mu ne sax Ousmane Sonko envoyé na ma message buy wane ni mi ngi ñëw envoyé na ma message directement mhm. ak yeneen ak yeneen fekk waxoon na tamit patron jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye bi que damaa ëmboon ak yooyu yëpp mboolem li Adji Sarr wax ba ñu dégloo ñeneen ñi contraire la ñu wax Ndeye Khady ba ñu ko dégloo dafa ne message bi muy wax existé wul message bi jugewul sax ci Ousmane Sonko ci beneen client Sweet Beauté boo xam ne arabe la ab arabe la moo envoyé message bi te man capture d'écran sax laa def envoyé ko Adji Sarr Mama Ba biñ ko dégloo mu ne bañ leen wooyee police di leen déglu Adji Sarr da ko doon jéem a corrompre proposer ko cent mille francs pour mu noppi. Hmm. bañ a boole bañ wax dëgg gi nu mu demee. Hmm. tentative de corruption dugg na. Hmm. Ndeye Khady Ndiaye nee na ba mu nekkee gendarmerie ñu koy déglu proposé nañ ko quinze millions pour mu taqal Ousmane Sonko. docteur Alfousseyni Gaye dégluwuñ ko gendarmerie mais doyen des juges déglu na ko ba mu ko dégloo dafa firndeel mbooleem la mu def ci certificat médical bi mhm. te moom tamit dégg xibaar yi génn ci moom ñu ngi koy teg ay pression pour que mu changer complètement sa certificat médical bi mais mu bañ ba tëdd ci suuf mhm. gis nga euh, pression bi nga xamante moom moo mhm. tegu ci kawam proposé nañ ngi noonu donc mbooleem ñi ñu déglu dañoo seetal Ousmane Sonko ba mu des Sidi moom dafa dafa dafa dafa confirmer version yi nga xamante ne Adji joxe na ko donc fii ma toog di wax ak yow lii mooy li nga xam ne nekk na ci dossier léegi nag enquête bi mënagul am na ñeneen ñoo xamante war lañ gën a mën a yaatal pour que bu ñu bëggee dëgg rek bëgg mbir mi leer mhm. war nañu déglu capitaine Touré mhm. war nañu déglu ki nga xamante ne moom mooy MC MC Niass war nañu déglu également ñi nga xamante ne dañu leen di jiiñ ne dañoo takk ci li nga xamante ne moom mooy complot complot alors balance bi balance balance damaa déglu euh, barki euh, démb muy expliquer naan que euh, procès lu war a mën a am la mais dama la dégg yow tamit ci say euh, euh, ci say propos yi passé chronique yi passé ngay xam ne que buñ dégluwee rek dossier bi rek ak ni mu tëddee rek ak certificat médical bi rek mhm. viol amut mhm. kon foofu procès mënu faa am mhm. contradiction boobu c'est vrai qu'en droit la contradiction loolu la ñuy la ñuy wax moom moo gën a sax moo gën a propice mais nan lañ ko mën a comprendre waaw xam nga xam nga justice la justice fonctionne justice moom ci ay firnde lay dox. xam nga tey jii nii na ma lii yoon dala naan ana preuve yi. soo nee niw di def la ma nii dañ na sa certificat ne diw yegg na sama kaw ñu ne la an sa euh, ana li nga xam moom mooy euh, sa këyitu docteur bi nga xamante ne day day day wane loolu. so ne diw yoreel na ma bor ñun indi la ana bor bi kan moo ko seede fan lañ ko bind. bu amul fu ñu ko bind ñu ne la kan moo ko seede kan moo ko fekkee woon. Mhm. faw nga indi firnde boo xamante moom moo koy wane. te am na ci xam-xam yoo xam ne juge bi ñu indil dossier bi amul pouvoir am juge du médecin mhm. procureur du médecin amul xam-xamu xool la càmbar la xool ndax yegg nañ sa kaw waaw wala déet moo tax bu ñu ko indilee dossier de buyal faw mu dem ci médecin médecin bi defar certificat médical mhm. waa léegi certificat médical bi bi nga xam ne moo nekk ci dossier bi mhm. li mu wax dafa leer dafa ni ci waxtu yi nga xamante ne ndaw si nee na yegg nañ ci kawam amul benn constatation benn seetlu boo xamante ne def nañ ko buy wane ni yegg nañ sa kaw yegguñ sa kaw ci waxtu wi nga xamante ne moom nga ko waxee ñaareel bi ba nga ñàkkee sa ndaw yàgg na mhm. inventé wu dara de li may wax yëpp mi ngi ci dossier waaw yegguñu sa kaw te ba nga ñàkkee sa ndaw alors que yow da nga ni c'est la première fois ñu yegg sa kaw mhm. ci guddi googu noonu le 2 2 février mhm. donc man li ma ko laaj c'est très simple dama ko ne ndax yow ci sa carrière avocat mës ngaa gis nit ku ñu condamné pour viol te amul certificat mel ni li ma fi doon wax jotaayee passé condamné nit pour viol suivi de grossesse. mais Pape moom aussi wax na lu am solo parce que nee na certificat aussi. mënul mhm. firnde viol il a dit ça aussi ci balance. la. Mhm. day wax ndax yegg nañ sa kaw waaw wala déet. Mhm. léegi nag anam yi ñu ci yeggee ndax ci viol la wala daf la neex loolu moom loolu moom médecin mënu ko détecter loolu juge bee koy décider. mais mais bu fekkente ne. xam nga certificat médical li muy constaté mooy ndax yegg nañ sa kaw waaw wala déet rek moom lu fa lay yem juge bi mooy xool na ndax yegg boobu ndax sa coobare bopp la woon dafa amoon consentement wala dañ la violé mhm. waa léegi bu fekkente ne certificat médical bi dafa ni yegg googu sax foofu amul mhm. dëgg yàlla est-ce que dégg ngeen ma foofu nag bëgguma mu lancé boobu laa bëgg a nekk rek léegi euh, euh, président su fekkente ne euh, dem nañu ba par exemple juge bi ne il faut procès am waaw euh, ay enquêtes yu mel ni euh, wala ay euh, ay investigation yu mel ni yu Babacar Touré Kéwoulo lan la mën a apporter kii bi enquête bi. bu fekkente ne bu fekkente ne avocat yi nekk ci dossier bi. Mhm. ñoom sàkk nañu par exemple bu fekkente ne dañu interroger woon koo xamante ne jëloon nañ ko mën naa contribuer à la manifestation de la vérité mën naa indi seedeem pour leeral mbir mi ay avocat mën nañu sàkk ci juge bi pour que ñu déglu kooku. Euh, doyen des juges bu fekkente ni dafa bañal avocat de défense ñu déglu yenn seede yi bu demee ba procès am bañ taxaw foofu am nañ possibilité demander waat ko juge boobu war a atte pour juge boobu noonu dugal ay seede donc loolu tamit lu mën a nekk la de la même manière également revirement mën na am ci mbir mi de hmm. revirement bu extraordinaire mën na am ci dossier bi parce man dama jàpp ne gis nga dossier Sweet Beauté bu ko toppee bu mu sës désordre dina li tax mu yéeme mooy. Mhm. Ndeye Khady Ndiaye ñu koy toppee pour affaire proxénétisme diffusion d'image contraire aux bonnes mœurs proxénétisme mooy nga jël ab bërëb. Mhm. def ko bërëgu cagatukaay. Mhm. ci kat pour ñu comme nit ñi mën a comprendre wax loolu mooy proxénétisme. parce que jigéen yuy jaay seen bopp du loolu la loi bi tere waxoon naa ko fi diine moo ko tere mais loi bi terewul jigéen buy jaay boppam. mais dafa ne boo koy def da koy da da la encadré ni mel. léegi bu fekkente ne dañoo jàpp ne Sweet Beauté moo fa doon daw. foo toppee Ndeye Khady Ndiaye di nga topp Adji Sarr. waaw fu ñuy arrêté Ndeye Khady yóbbu ko kaso pour prosélytisme. waaw parce bu fekkente ne moom mooy patron bi di cagatuloo nit ñi ñamuy cagatuloo ñooñu mënuñu rëcc. moo tax ma ne mbir mi bu ñu ko toppee logique dossier bu ñu ko toppee ba mu sës désordre bu bëri dina am. désordre boobu te loolu benn la rek moom mooy moom mooy alors euh, ki nga xamee moom mooy capitaine Touré. et lui dans tout ça cest alors moom moo ci doon këf nga ko waa non non moom moo ma njëkk këf de fàtte na loolu léegi léegi léegi léegi euh, dama bëgg juste mu ñu nga ñëw ci ci ci ci capitaine Touré dans tout ça mhm. moom moo jotoon déglu ki nga xamee moom mooy Adji Sarr mhm. alors euh, jotoon def aussi rapport am ah, ah, ñu jékki saay ñu génne ko ci ci ci gendarmerie maanaam ñu dàq ko mhm. ak yeneen yi ci xew yëpp moom est-ce que rapport bi mu jotoon def ak liñ ko jotoo euh, taxel yëpp dina fiable présentement ci biir dossier bi ak euh, bu ñu xoolee aussi les quarante millions yi nga xamee ne ko Kopor Express def na ko ba am pour jàppale ko ko ak entre autres mhm. yi jot a am ci biir dossier bi bi durant bi mu nekkee gendarmerie ak bi mu ci ak bi mu bi mu génnee mhm. moom à sa personne bu ñu jëlee considération yooyu yëpp est-ce que xalaat nga ne que moom li mu jotoon liggéey noonu ci dossier bi. ndax mën nañ ko annulé waaw ça toujours valable li tax muy valable mooy. Mhm. moom ak enquêteur la woon rek waaye unité bi doon entendre gars yi muy section de recherche y un commandant bu koy jiite te ci jamonoy commandant Abdou Mbengue la woon. Hmm. te moom mooy signé PV yi. Hmm, moom mooy signé PV yi moom mooy jox ko procureur procureur moom lay waxal moom lay coordonnel hmm. te moom moo signé PV yi defar ko ba kii ko loolu ça reste loolu mënuñu ko ne su ko su bu amul ab jalgati ci procédure bi loolu ba léegi day des ci dossier bi te mënuñ ko mënuñu ko mënuñu ko annulé waa xam nga léegi maa ngi la naan mbir mi buñ ko toppee ba mu sës désordre dina am ci dossier bi parce que ñëpp dinañ dem kaso mhm. foo toppee Ndeye Khady Ndiaye di ko jiiñ wàllum proxénétisme ne da doon cagatuloo xale yu jigéen yi mhm. kon xale yu jigéen yam doon cagatuloo ñooñu mënuñu rëcc ak ña fa doon ñëw tamit di cagatuwaay ak clients yi doon ñëw foofu di kii tamit mënuñu rëcc mhm. te am na ay kilifa yu fa doon dem yoo xam ne seen tur génn na am na yu ñu toppee mbir mi ba mu sës mhm. désordre dina am donc fu ñu toppee Ndeye Khady boo ko yóbboo kaso wala nga condamné ko wala nga jugé ko pour proxénétisme donc di nga ci boole Adji Sarr di nga ci boole sa tabaa muy benn parce que tribunal bañ leen war a attee kenn du fa comparaître libre kenn du fa jóge sa kër di ñëw dañ lay foog ñu foog la donc fu ñu arrêté Ndeye Khady Ndiaye di nga arrêté Aïssata Ba di nga arrêté Adji Sarr muy benn deuxièmement bu leen fàttali Sidi Ahmed Mbaye déglu nañ ko ci dossier bi ba mu ñëwee la mu wax la mu wax mhm. lu ne mën na ko cee fekk mm. parce que moom ba mu ñëwee dafa dëggal ni moom guddi googu noonu moom moo jël si woon Adji pour yóbbu ko hôpital muy benn mhm. ñaareel bi également enquêteurs yi posé ko question une question rigoureuse ne ko yow Adji Sarr ñëw na ci ci yow la diw daf maa violé lan moo tax jéemaloo ko rëccuwoo nga digal ko mu dellu ñu violé waat ko une deuxième fois Sidi Ahmed Mbaye ni non dama bëggoon mu am preuve bëgguma woon rek mu taxaw di wax nit ñi di ko wet dama bëggoon wax mu am preuve gendarmerie ne ko mhm. kon yow da nga yaa ko yaa ko yaa euh, ko pour que ñu dem violé waat ko mhm. mu donc loolu loolu la loolu lu muy nuru <laughs> incitation au viol donc kooku mënuñ ko topp. wax dëgg yàlla moo tax mbir yi buñ ko toppee ba mu sës. ñi ñu ci war a mën ba nga xamante ne ça crée un désordre boo xam fii ngeen nekk nii dafa am solo parce que demal ñu violé waat la boobu pour ut preuve ci loolu la ñu waxee que. Ah, euh, si la ñu créé benn vidéo. entre Adji Sarr ak Ousmane Sonko. ko mhm. donc alors que yow nee nga vidéo tey jii. ci mhm. matière de ci en matière de preuve tey sa ne compte pas en fait seen vidéo boobu ñuy wax kon. ça signifie rien justice de bu doon bu doon mbalit bu jógee ci mbedd mi rek ñu basé ci tëj nit mhm. kon fi toll nii yaakaar naa ne a ngi ñëpp a ngi kaso dañ koy lu ne mën nañ ko sax wax lu nit wala defar montage boo xamante ne nga maam léegi may ma dimbali ma rek Adji Sarr ji Adji Sarr ji bu ñu daanee Ousmane Sonko tey waxee sétalee Ousmane Sonko waaw ñu ne ko léegi non lieu wala classé genre seen matière yooyu noonu ñuy wax lan moo ci mën a fekk Adji Sarr ndax Ousmane Sonko mën na dellu porté waan plainte Adji Sarr mhm. voilà effectivement mën na nekk képp ku ñu porté plainte yoon nga dem yoon setal la yow mi ñu setal am nga possibilité retourné wu contre ki la porté plainte nga porté ko plainte loolu la ñuy wax dénonciation calomnieuse mhm. donc loolu tamit loolu ko porté wu nag dara du ko ci fekk waaw dara du ko ci fekk mais leeral tamit ni faux témoignage c'est un maanaam seede seede loolu déli la mën nañ la cee jàpp mën nañ la cee arrêté te mm. dossier bi am na ci ñoo xamante ne def nañu faux témoignage parce que am na ay faits yu koy firndeel dossier bi aussi dafa am leneen lu mu indiwaat muy euh, euh, mois de mars bi ñu convoqué ki nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko dañu ko koy dañu ko indexé comme quoi que da doon def euh, trouble à l'ordre public mhm. loolu noonu ba ay doomi aadama ñàkk seen bakken après bu fekkente dañ ko def non lieu ba procès mu jur am dara mu jur am lépp euh, daal di retourné wu contre Adji Sarr est-ce que Ousmane Sonko mënuñu ko topp euh, ci désagrément yi nga xam ne amoon na fi au mois de mars ba quatorze personnes décédées waaw pour pour quatorze morts yi mhm. xam nga moom pour nga joxoñ ko ci baaraamu tuuma dina xaw a jafe que li tax muy jafe mooy xoolal dee mi ngi am diggante 3 mars ba ba le mars. jour bi nga xamante ni ci nañ ko arrêté moom ci boppam am na ñu fa faatu ca ma nga woon ca loxoy yoon. Mhm. kon kooku boo ko bëggee jàpp ni moo rey ñii di ça va poser problème. ñaareelu mbir bi mooy 14 ñi ci dee ñëpp dañ leen suul te amul autopsie. Mhm. autopsie mooy kayitu docteur bi wax kii ci yan anam la faatoo ndax dañ ko dóor balu fetal. Mhm. wala dañ ko jam wala dañ ko xoj. wala dañ ko poisonné wala ban anam moo ko rey te amul benn autopsie bu ci am donc loolu pour nga def ca enquête ça veut dire que amul woon benn volonté politique pour que ñu def ci enquête mhm. beneen mbir bi ci des mooy am na rapport international rapport Amnesty bu génn buy wane ne am na ci quatorze morts ñoo xam ne ay wane nañu takk der am na si yor na ay image ay vidéo yoo xam ne wane nañ takk der yu tiire waaw donc buñ doon topp mbir mi ba mu sës mhm. yuuxu dina jëp fuñ ko fuñ ko fuñ ko mhm. foogeewul léegi nag man dama jàpp ne enquête bi dafa war a ratisser large mhm. bu fekkente ne thèse complot bi nga xamante ne ñu ngi koy wax mboolem ñi nga xamante ne feeñ nañ taq nañ ci te te dama lay wax ni la mbir mi mbir mi yéeme na yéeme waay boo xamante ni bés buñ ko toppee ba mu sës hmm. waaw léegi léegi léegi Pape Pape euh, ci biir euh, euh, dossier beeg wax jeeg yooyu xam nga ne woon nañ tamit Adji Sarr dafa ëmb mhm. ëmb waaw léegi léegi ëmb boobu ëmb boobu ndax bokk na ci wàllu dossier yeeg enquête yeeg yooyu yooyu wala wala ëmb bi moom xam nga xam nga c'est-à-dire que euh, Adji Sarr ba muy wax ak jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye bi daf ko ni woon dafa ëmb ak ba muy wax ak Ndeye Khady Ndiaye ak borom këram dafa leen daa ëmboon mais bañ demee ba ci biir gis nañ ni yëf yi amul woon wàllum avortement sax génn na ci mhm. wàllum avortement génn na ci dossier donc foofu justice li mu war a saytu bëri na de mm. kii taxawoon na ni damaa ëmb mu jékki-jékki ëmb justice war na def enquête xool ndax avorté wul bu dee avortement am na ci avortement délit la Sénégal mhm. biir yàq ko yoon da koy tere da muy def déclaration mu ne c'est ma gis nga xam nga juge moom kenn mënu ko opposer le secret professionnel avortement lu jëm ci biir di ko yàq loi da koy tere balaa ñu koy daganal bu fekkente ne bu ñu yàqul biir bi ki jigéen ki faatu fa lañ koy daganal te il faut ñetti médecins yu bokkul xamante wuñu seedee bu ñu yàqul ëmb bi faat mbir mi soxna si day faatu foofu la procureur di autoriser pour que ñu def li nga xam ne moom mooy avortement bi donc mbir mbir maa ngoog mais moo tax ma ne la mbir mi yéeme na yéeme waay boo xam ni buñ ko toppee ba mu sës yuuxu dina ko foog te bëri na fi tey jii ni ñoo xam ni ci pouvoir bi lañ bokk. Mhm. au début dañ doon taxaw di di di wax lu ne ci dossier bi am na ci ñoo xamante tey. too leen ñu wax. Mm, ñooñu war nañ leen laaj lan moo tax ñu noppi kenn rek laaj ciy tudd. Mm-hmm. muy Maodo Malick Mbaye. mbay ko Sénégal yëpp laaj lu tax ñeematul wax ci dossier Adji Sarr. man naa lu tax. mais duma ko wax na ko Sénégal yi laaj lan moo tax waxatul ci dossier Adji bu weesoo moom am na ci ñeneen ñu bëri ñoo xamante ci début ba. lu leen ña ko doon wax dañoo jë du loolu de. Mm. ah leneen doon gën a rëy làmmiñ ci tàmbali ba fi ñu toll ni patt lañ def lan moo tax nañ leen ko laaj ñu wax ñu gën wax ko déet loolu nag moom wax dëgg yàlla awma ci benn information. en tout cas mu nekkoon information yu am solo mais euh, dama bëgg a laajte rek ndax maître El moo yor toujours dossier Adji Sarr wala. ñaari avocat la am. Mhm. muy maître El Hadj Diouf ak maître Abdou Dialy Kane. tandis que Ousmane Sonko nag moom am na 15 avocats. 15 ba 16 sax en tout cas plus d'une une dizaine d'avocats am na ko. ñu nuyuwaale maître El rek gis nañ ko dégg mu wax <laughs> di la jaajëfalaale. bu ci yeneen jotaay rek. d' accord bu euh, nekkoon information yu am solo donc euh, ni ki tey Ousmane Sonko le leader du PASTEF euh, wax dem wuy ji ci comme ni ko Pape waxee de convocation mais comparution la war a def koo fee ca doyen des juges. c' est la première fois mu war a wax ci fond du dossier bi donc je pense que au plus tard à deuxième fois. d'accord du ñu xóotal dañ lay laaj rek li lay toppee yaa ko def waa wala déet. Mhm. nga ne waaw wala ñu notifier la inculpation. waaw mais fond dossier bi tey lay doon incha allah donc euh, mu nekkoon lu am solo peut-être au au plus tard 12 heures dina fekk mu wuyu ji. Mhm. mu nekkoon lu am solo di la jaajëfal rek. waaw di di di di macha allah amoon noonu la lu ci beesaat rek diggante bi bu ñëwee ci yeneen jotaay rek euh, mhm. kiiwal ko di wax ni gaañu moom nañu nañu nañu seen kër parce que dëkk bi bi ñu ko ni ñu ko gisee ni moom dafa mel ni ñu ngi ci état de siège <laughs> xam nga état de siège moo gën a garaaw état d' état d' urgence xam nañ luy état d' urgence dund ko mhm. état de siège nag boobu boo xamante ne bi la